ñu ngi leen di ndokkeel ci bis yi nga xamante ni ci lañu nekk muy layaalin asr ba ci gën a ràññeeku di bisu <coughs> di bisu tabaski di leen di baalu bu baax di leen baalu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu njëggal moom mi ko amee tey ak ëllëg yàlla defal ñu tawfiix tey siir najaax salaam saadatu daarayn musal ñu musal mboolem jullit bu jaay seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam naa ñu dellu soir rek ci jeexantalu téere bi nga xamante ne ci lañu nekkoon muy ad-duruusil awwaliya fii tawxiid wa fiq al malikiya ñu nekk ca cëppaan ndaw ji dafa mel ni tey ji mooy doon suñu dernier leçon pour ñu jeexal ko ñu ngi woon ak yéen itam ci mbiru aj ndax bi paase xamoon nañu lan mooy aj ak lan mooy ponki aj ponki aj yooyee nañu ñu commencé woon di ko faram fàcc jiitaloon ci lañuy ñuy wax ihram tegaat ci itam lan la ñuy wax sa'yu bayna safa mooy diggante safa ak marwa ba tey jii nii ñu war a ci sunnay safa ak marwa waxoon nañu lan mooy faratay safa ak marwa farata yooyu ba ci jiiti woon mooy ginnaaw ba nga tawaafee ba pare ci kaaba gi booy dox safa ak marwa nga commencé safa jeexale eh, marwa def ko juróom-ñaari yoon mu bañ a am itam espace seen diggante maanaam def benn dawru dem defi leneen ñëw defaat da nga koy da nga koy jokkale tey nag ñu toll ci xam lan mooy sunna yi nga xamante ne mooy am diggante dox safa ak marwa dinañ fa jóge itam xam lan mooy li ñuy wax ab tawaaf mooy tawaaful kamba wër gi ñuy wër kamba gi moom itam am na ay farata buñ ci jógee itam dañu xam lan mooy wuquuf bi rafa lan mooy taxawaayu arafa ak lan mooy ay ponkam incha allah ci ponk yooyu ci lañu war a waxtaan tey incha allah maa ngi sunanu saayu sunna yi nga xamante ni moo am ci saayu bayna safa wal marwa diggante dox bi ngay dox diggante safa ak marwa dafa am ay sunna sunna yooyu nag mu ne xamsatun juróom lañu ittisaaluhu bi tawaaf mën nga jokkale ak tawaaf boo wëree kaaba gi ba pare rek automatiquement nga dem defi sa euh, sa'i bayna safa wal marwa da génn ci kaaba gi nga tawaafee ba pare rek dem dox diggante safa ak marwa mu doon loo nga xamante ni danga koy dox itam ci ku ko man lay tudd taqbilul xajarul aswad waaye taqbilul xajarul ci tawaaf lay am bu fekkente ni man nga àgg ci xajarul aswad ci nekk ci kaaba gi nga foon ko raay ko boo ci mënta jot itam boo tolloog moom nga kàbbar ko nga kàbbar da ko dugal ci sunanu saay mais bokkul ci saay moo tax mu defaat ci bande tawaaf booy tawaaf saa boo toll xajarul aswar wala boo boo ko mënee fóon nga fóon ko raay ko boo ko mënul boo ko jégewul bu mënoo ko li koy remplacer mooy heure boo am na benn ligne bu tolloog moom saa bu wëree ba si ci rek da ngay tourner jàkkaarloo mu kabar ci tawaaf bi itam bokk na ci sunna yi ci saa yu bi ngay dox diggante safa ak maro bokk na ci sunna itam nga yéeg ci kaw safa yéeg ci kaw maro yegg ci kaw montagne lo ci yegg lum mu tut tut baax na na nga yegg ni yegg na ci montagne bi rek ina ma sha allah defar nañ ko bo dafa am ñuy jaar ci kaw am ñuy jaar ci nga xamanteni nit ñi duñu daje man ngay nit ñi dañuy tourner rek comme tourner comme tourner rond kenn du dajeeg sa morom ndax mooy gën yomb nit ñi ñi di dem ñi di ñew ñi mbëkkante di nga am espace bo nga xamanteni di nga man di yéeg ci kaw ñu wacc wax deug yalla amna amna ak yombal loolu itam bokk na ci loole a du'a wa alayhima montagne boo ci yéeg itam saa boo jógee safa boo départ safa nga ñaan boo demee marwa nga ñaan ba wàccaate ñëwaat safa nga ñaan di ko def noonu ba kera say juróom-ñaari juróom-ñaari yoon yi di mat beneen bi itam ma huwa tawaaf ani lan mooy tawaaf mooy wër kaaba mooy wër kaaba الطواف هو الدوران حول الكعبة mooy ngay wër kaaba gi jaa'ilan alkaabata ala yasarihi jisril qalb booy wër kaaba gi nga wër ko sa côté càmmeñ nga xamante ni kaaba gi càmmeñ la lay féete kon mooy féete ak sa xol kon doomu aadama dafa féete ci côté càmmeñam kon booy wër kaaba gi kaaba gi da lay féete càmmeñ boo koy wër da lay féete càmmeñ jaa'ilan alkaabata ala yasarihi jisril qalb kon loolu mooy tawaf tawaf mooy ngay wër kaaba gi boo koy wër nag doo ko wër sa côté ndijoor maanaam kaaba gi du la féete ndijoor mais kaaba gi càmmeñ la lay càmmeñ la lay féete kon na koy wër si càmmeñ toujours sa loxo càmmeñ sa tànku càmmeñ mooy féete ak kaaba gi booy wër loolu mooy tawaaful tawaaful ifaada waajibaatu tawaaf tawaaf nag am na ay ay warteef maanaam ay war yoo nga xamante ni obligatoire la am lu war la pour kii tawaaf di ko def waajibaatu tawaaf ñett salaasatun ba ci jiitu mooy ibtidaauhu mi al xajaril aswad fa ñuy wax xajaril aswad am na port bu tolloo fa bunt bu nekk mu ni booy wër kaaba gi nga jeexale foofa nga commencé ko foofu ci xajarul asot fekkente nag bunt yëpp dafa xat ba mënoo ko mënoo duggee ci bunt ba bunt ba mën di jaareer mu nga dox ba agsi ci tolloo xajarul aswad commencé foofu wër bi nga xamante ni moom ngay wër mooy ibtidaauhu min al xajar al aswad booy wër nga départ toll ak xajar al aswad nga xam ne heure boo yëg siwaatee xajar al aswad da nga xam ne am nga benn tuur nga wëraat ba yëg siwaat am nga ñaari tuur yi juróom-ñaari tuur yi juróom-ñaari tuur di mat almasyu fii lil qadr mooy ki nga xamante ni am na wér mën naa dox mu la ci gën mooy mu dox bu fekkee mën ngaa dox boo doxulee rek wër baaxul kon ki mën dox da koy dox ak tànkam fekkente nag ay tankam mënul dox wala wërul wër ak dox ko woba amna possibilité euh fay nit mu bot ko wala mu fay nit mu tek ci pouce pouce ya kana pouce pouce léegi mo ëppal mu yam pouce pouce pousse mo ëppal mu lu muy moo ëpp lu mu ni bo wëré ba jéxal itam nga def rakaataani ba'dahu boo wëré ba jéxal nga arrêt ba ci ginnaw fa ñi wërul di nekk nga def fa ñaari ñaari rakaat loolu mooy waajibaatul waajibaatul kaaw waajibaatul euh, at tawaaf wuquufu bi arafa maa lan mooy taxawaayu arafa yooyu dégg ñu naan lan mooy taxawaayu arafa arafat am montagne la waaye du montagne ba kese mooy arafa am na bayal bu yaatu bu ko loolu lépp la ñuy tuddee arafa la ci nekk montagne bi nag moom la ñuy tuddee jabalu arafa لكن هناك مونتاج ممكن يتدرج جبل عرفة مونتاج أبزون لبعض خمين تين مونتاج بمك ممفو فنك من يروح جبل ومن يروح عرفة مونتاج لكن هناك ممكن يتدرج جبل عرفة الوقوف بعرفة هو أن يقف الشخص بعرفة ليلة الضحى قبل فجرها ممكن خمين تين دفع دم أجمك دفع ورد تخو عرفات دفع ورد دم تخو عرفات guddi gi nga xamante ni buñ ne mooy guddi tabaski ñun maanaam sugal tabaski guddi googu foofu nga koy foofu nga koy paase noonu tëkkat espace bu ndaw nga ci am gis fii ni ñu koy defee maña buñ ne buñ ne subala subala tabaski tey jii fa la ñuy yendu buñ demee jour arafat tisbar la ñuy jël jamoo ko ak takkusaan def ko jàmm taxdi maanaam tisbar lañ fay jullee boole ko ak takkusaan bu nañu xasru ko bu nañu julli ko ñaari rakk julli ko heure tisbaar takkusaan bu ñëwee duñ ko fa jullee waaw tisbaar ak takkusaan dañ fay boole jàmm taqdim maanaam bu nañu julli ko ñaar boole ko ci heure lañ koy jullee bu demee bu timis di jot duñ julli timis yi ndax sallallahu alayhi wa noonu la ko defoon dañuy dem ba ba mun a fa la boole jee timis ak gee moom itam def ko jàmm tàxiir heure heure gée dañuy julli timis ak ak gée bu ko defee nag bu ñu xëyee nag dem ca dem ca tawaaf ba kon loolu mooy alwuquuf bi arafa mooy taxaw ki nga xam ne dafa aji mag an yaqifa sax bi arafata mu dem taxaw arafaat guddi laylatul adha guddi gi nga xamante ne moom lañ naan mooy guddi tabaski dara ci heure boobu fekk la fa loo tax timis di leen fa fekk xam la fajar avant fajar gi xar na nga yow nga nga dem nga mën a dem nga mën a dem muna loolu itam dafa am ay arkaan yoo nga xamante ni mën mënu cee ñàkk la ñuy wax ay kenu ay ponk arkaanu ponk wala kenu yi nga xamante ni mooy kenu taxawaayu arafat mu ni ñaar la ay al ilmu bihi ki aji màkk dafa war a xam xel la ni tey jii heure bii mooy heure arafat diggante heure bi ak heure bii dafa war a taxaw nga xam loolu ba pare ba ca desaan mooy nga yéeneel ko maa ngi yéene def taxawaayu arafa mu doon benn ponk ci sama aj yéene taxawaayu arafa mu doon benn ponk ci ci sama aj beneen ba ci mujj mooy waajibaatuhu yi nga xamante ni daf cee war ci nit ki pour nga def ko mooy ay warteef xam itam ñaar la mooy ak tuma nii natu nit ki dal dal demee arafaat nga moo tax ñu def ay tànt yu bëree bëree bëri macha allah yàlla ñu yàlla daqal corona ndax ren la fa nekk daanaka jarul tànt moo tax def tàll lu ñuy tànt sax ku daan seetaan ni mu daan mel ak ren jii ni mu mel tabaarakallah yàlla na yàlla dàqal ñu mbas mi mu jóge fekk jàmm ba nit ñi nañ daan aj demee màkk di aji ak programme yi diine yañ ko daan doxal yañ ci daan doxal yépp ñu mën koo matal yàlla nañ ko yàlla defal tey boo fa demee nga dal dal am fa diir alxudur bi arafa nahaaran nga teew arafa ci yoor yoor ba itam maanaam kon bëccëg ba na la fa dara fekk dara ci guddi gi na la fa fekk alxudur bi bi arafa baada zawal mu ne ginnaaw loo yéex yéex yéex a dem ginnaaw bi jant bi jengee fi ñu war a jullee tisbaar na la fa fekk ndax heure boobu la fa yonente bi salaa sallam def woon jamoo baynal zuhr wal asr ci la yonente bi salaa boole woon tisbar ak takkusaan ci waxtu tisbar kon lo fa yex yex yex yex dem heure bobu na fekk nga dem fa heure bobu moy heure bi nga xamanteni mom lañuy julli tisbar ak takkusaan boole ko ci waxtu tisbar ñu fay def imam bi fay def khutba sax ci masjidu bi ñu wax masjidu namira ay def khutba bi ba jeexal ñu dogu julli ji julli tisbar gi ak julli julli takkusaan gi kon lolu moy wajibatu arafat kon haza wa billahi ñu ngi jéggal waan mbokk yëpp di baal waan ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu booleñ jéggal ñu xam ni ay ndongo daara yu doon nap na rek di fàttalente ak ay mbongi ndongi daaraam ñoo nekkoon ci téere bi ñuy wax at durusul awaliya ñu commencé woon ko jamono bu xaw a yàgg xawoon a am tolof tolof yi machine yi nga xamante ni moom lañ ci jàllalee wax yi ñuy portable yàlla dimbaliwaat ñu ba ñu àggalewaat ko tey ji kon ñu sant yàlla ñun ñëpp ndax dañu ñaanoon dañu waxoon bismillahi rahmaani rahim di ñaan yàlla àggale fi ci alhamdulilahi rabbil alamin kon yàlla may nañu àggale fi ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu waxoon alhamdulilahi rabbil alamin yàlla defal ñu dégg ak topp lépp ci jug rek ñoo xam ni ci kàttanu borom bi la lu ci dëng itam ñu xam ni yàlla subhaanahu wa taala mbiram dara dëngu ci lépp leer ñun ñi nga xamante ne ñoo koy jot la ñun la suñu làmmeñ dëng wala suñuy dégg-dégg leerul ba ñu mën koo leeral mbokk yi ñu ciy jéggalu bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu